internetu Feeling Dakar dal leen ak jàmm ñu ñëw ak yéen nag ci xibaar yi nga xamante ni moo gën a fës ci bés bi dañ koy doori ak saltige bi di Korom ak Faye moom nag dafa daal di def benn accident ni ki démb ca mercredi bi ca autoroute à moom Korom ak Faye gannaaw ba mu doon dem ca toolam yooyu nekk ca Pointe Sarène ca Mbour moom nag ak doomam joojule di Alioune Faye seen oto boobu nag dafa daal di accidenté ci autoroute à péage ba tax nag bu ñoo sukkandikoo ci information yi nga xamante ni Sénégal daal dina koy joxe rek moom moo di moom seen oto boobu le nag dafa daal di jékk saay rek daal di euh, dérapé mu daal di def nag ay dégâts yu bëri waaye nag ña nga xamante ni ñoom ñoo daal di nekkoon ci biir oto boobu le dara jotu leen na buñ fa jógee wax ci ki nga xamante nii moom moo di Ayo Balde ak Omoro jamono ji nag seen diggante mel na ni jeex na ndax nag kii di Ayo Balde daal dina fësal ay audio yoo xamante ne ni daal dina koy jëmale ci ki nga xamante ni moom moo di Omoro di xas ki nga xamante ni moom moo di Omoro ak yaayu Omoro moom nag euh, Ayo Balde moom la yëkkati na ay kàddu di wax tamit ci ki nga xamante ni moom moo di Pape Ndiaye di wax deal bi nga xamante ne moom ak Omoro dañ ko doon def dañuy teewlu yooyu la audio. Papa Ndiaye noo yaa ngi ci jàmm call naa la woo naa la léegi call naa la obviously jëluloo message naa la xam naa ne gis nga ko because yaa ngi woon online ok lu ma la bëgg a wax lu tuuti la rek te bariwul man damay respecté nit damaa bëgg ku ma ko delloo ba mat sekk parce que jëkkër bu ma takk sax teg ma xam na ne maa gën a réew kaa la ñu réew maa fi gën a baax nag maa fi gën a mën a bëgg nit maa fi gën a mën a respecté nit mais bëgguma ku ma manqué de respect parce que duma duma du ma manqué de respect nit duma ma disrespect nit si gàttal. li nga toog di ko wax ak Omar si télé bi Omar naan la guddi guddi pikin lay deelu muy gëllam boobu xaw ma yeesaloo xaw ma rakku xadiloo bi xam nga yoo xamuloo ne man xam naa ko te Omar xam na ne man xam naa ne ko gëlam la woon. nga ànd ceeg Omar naan ko def ci code te yow yaa Omar yéen a ànd dem liggéeyi xam naa lépp lenn rek laa la bëgg a wax ñàkkuma fayda manqué wu ma Omar yabu ma yow yabuloo ma te man gisuma kenn góor yabul jigéen yabul te du Omar du tax kenn ku ma waxoon naa ko bu fekkee moom dafa manqué ba Sénégal yëpp yab ko man yabuñ ma parce que man xam naa sama bopp xam naa kan lay waxal xam naa fan lay dem ak lan lay wax ak kan lay wax ak kan lay waxal manqué wu ma. daw ma si gannaaw kenn rasaataw ma lu ma am maa moom sama histoire euh, Omar nag damaa bëgg nga génn si ba mu set Papa Ndiaye rus naa la respecté naa la te jox naa la cër te bëgguma ñu yegg fee nay ma seetaan entre temps ba mu jeex Omar sama guerre ak moom du ma mu ne dafa capable toog tudd xadiloo naan naan guddi guddi pikin mais moom bu fekkee moom dafa guddi guddi pikin kon na am jom mu fase ma ndax moom mënul yor jabar ku mënul yor jabar nag gel sa mënoo ko yor ndax takk na jabar mënul ci man ñaari salaamaaleykum du dépasse du añ du reer dëkkewu ma dëkkewu ma yow mii xaritam laa koy wax nga da nga fimiste rek waane ànd ak Omar ci yëfi noonu seen si fi yi muy def ci télé bi dama la koy wax nga ko te vocal bi pare dama koy yónnee ce que yaa ngi dégg bu baax moom dafa takk jabar te mënalul jabaram salaamaaleykum du dépasse du añ du reer mënul yore jabaram da ba ma takkee ba tey dërëm dërëmam duggul ci man te yëfi ñàkk fay fayda yëfi mankaakunkaan la di di toppa si gannaaw Sidi Diop la dëkk subaa ngoon guddi ak bëccëg def yëfi mankaakunkaan di fecc ñu koy snap xale jigéen ñi di ko snap di ko dugal si snap bi sa doom day la dëkkee naan ñaan baat nag chaque jour ma ñaan ko baat bañ na ne du ma fase comme sa doom day la yéen ay ànd pikin yéen ñaar si si kër yee saloo xaw ma si kër rakku xadiloo bi bu fekkee na nag bëgg nga ko nekkoon dama fase te dafa bëgg mu ñaaw comme dafa toog si télé bi di gaaral dinaa ko ñaawal dinaa ko saltel ba mu moom la Sénégal nday woon dinaa ko leeral ba mu mais dama la ne yow bu Omar toogee di gaaral damaa bëgg nga neutre si génnal sama diggante ak Omar buy gaaruwaale wala nga bëgg lu neex Omar loolu fajee ko neneen mais pas muy dugg samay 18 nga ciy dugg wax naa la ko nag duma la ko waxaat rus naa la trop te respecté naa la ba nga woowee keroog di wax ci oma dama wax ak yow ci njekk ak teraanga man oma du sama far sama jëkkër la est-ce que yaa may dégg bu baax bu fekkee dafa am fooy far wala fooy far farlu dangay xaar ba takk jabar papa Ndiaye rus naa la nag rus naa la trop. ñu wax ci ki nga xamante ni moom moo di Ndoye Bane moom nag Ndoye Bane ci émission boobu di xalaas moom nag euh, tey dafa daal di wax ci li nga xamante ni moom moo di journaliste yi tax na moom Ndoye Bane dafa daal di ŋàññe yenn journaliste yi di wax di wax rek ni que taxawaay bi nga xamante ni ab journaliste war na koo am rawatina fi jamono ji toll dañuy daal di teewlu kàddu yi nga xamante ne moom Ndoye Bane daal di na ko yëkkati. lan laa doon laajati. amul question boobu wax ñoom Ndiaye de. éthique ak déontologie journal waaw c'est que réew mi dafa bariwul ay hmm. journaliste journaliste yi fecc laa wax de non journaliste moom day fekk nit la rek. ah ok am na ci droit mais su fekkee wàllu mi moom. Ah. journaliste non non man yónni wu ma foofu ah, de. waaw yaa ma laaj éthique ak déontologie journaliste man da ci métier mi la mais journaliste. ay waay ay ay léegi dinaa ko wax ah. réew mi bariwul ay journaliste c'est que sénégalais yi dañoo yaakaar ne ku yor micro rek di wër. journaliste journaliste nga te bariwuñ fii. attention bopp ñu bari dañu yor ay caméra ki wër di wër sénégalais yi nañ xam ni journaliste bariwul ci réew mi. Mm-hmm. ñooñu yor micro yi di sax ay comédien kenn <laughs> loo loo bëgg xam naa lépp de. Ah. leeral nga ma lépp de loo waxoo ah. yi daal mooy. Hmm. responsabilité la joxe ay xibaar yu wér te xibaar yu wér te wóor bu ci fayee bor bu ci xuloo bu ci xeex joxeel xibaar yu wér te wóor yoo xam ne kenn du la kenn du la weddi waaye xibaar yu boo xam ne xibaar boo joxe su subaa ñu weddi ko indi dëgg gi loolu du journaliste ndax nit ko war naa jàngiwaat journaliste waroo jël sa yëf di ko xeexee maanaam yor sa arme yor sa kii di ko xeexee euh, sa sa sa sa xibaar di ko xeexee <laughs> ci bàyyi ko journaliste war too log yaa ngi expliqué ba tey. soo logee man pourtant man mi ngi expliqué nee naa la comprendre naa bu yàgg. Ah, nag ci vidéo boo xamante ne nii Ndella Madior moom moo ci nekk moom Ndella Madior nag ñëpp xam nañ ni dafa firi ci noonu sax moom da doon fecc ci li nga xamante ni moo di son wu Ngaaka Blindé bu bees bi di King Baba moom nag daal woon na def benn rencontre ak Ngaaka Blindé ñu daal di teewlu boobu la vidéo. dañ koy euh, jeexale ak ki nga xamante ni moom moo di Pape di faal moom nag ni ki démb euh, réseaux sociaux yi daal dinañ koy euh, amee ci noonu sax ñu wax rek ni que moom Pape di Fall dañ ko daal di humilier sur Twitter gannaaw ba nga xamante ni moom da doon animé wax ci li nga xamante ni moo di son bi nga xamante ni di dund gis mu ngi koy waajal mu war a génn ni kii le 23 janvier ci noonee nag dip daal di génnee teaser bi daal di koy duppee musiba moom nag Pape Sidi Fall daal di def benn sinap boo xamante ne nii daal di wax rek ni que c'est la première fois que benn artiste daal di def euh, clip ci 10 millions ci noonee nag la daal di am ay réaction yoo xamante ne nii daal nañ koy fësal am ñu ko daal di tontu di ko wax rek ni kii di Thione Seck moom nag ci clipam boobu di jaaga moom daal di